asalaamaaleykum mbokki Sénégal waaye asalaamaaleykum mbokki réew mi bu ngeen déggee sama kàddu yi nga xam ne islaam woote de lan la ñu ni takkusaani Seydina Mohamed kan moo ko amal Alaaji Pablo fan la koy amele ngéwél kañ la ñu ni samedi 3 décembre 2022 ci ngéwél anday ah, saan ci dëgg-dëgg bés boobu nag nga xam ni takkusaani Seydina Mohamed la Alaaji Pablo daw safa ak mara yokk cofeelam Seydina Mohamed digg ko woote ci bii réew mi waaye nag mu ci fàttali yu baax yi ñi nga xam ndeysaan ci dëgg-dëgg ku tudd ci réew mi ah da nga leen bàyyi xel de muy kan di maam Soose Njaay ndeysaan ci dëgg-dëgg buñ ñee Soose xel yëpp dem ci alias Njaay mu ko jur ak ndeysaan ci dëgg-dëgg ak soxna Moïse Sall ah ndeysaan di jàmbaar l'islam réew yëpp di ko laaj bés boobu maam Soose yaa sanc doxo bi 1960 waaye ba léegi eh, eh, réew mi yëpp de ñu ngi lay fàttali ah góor googu nga xam ni ni Njaay Abdou Aziz la de waaye xaal laaw xaalis waay rek la xam ñu koy fàttali ci bés boobu kon daaj Pablo daaj nga ko de ak kam day sant dégg-dégg Serigne Mansour si ah Serigne Mansour nag bu ko bu ko tuddee xel yëpp dana dem nag ci Abdou Aziz si góor nga xam ni mu Abdou Aziz moo ko goro bopp woo ko fa nag woo fa ay way juram dij ko fa ba moom mi mu nekkoon fa xalifa nag day sant ci dégg-dégg ba xëy ñu dëgg ak kam day sant ci dégg-dégg al imaamul akbar ci dégg-dégg waa ci kenn bu ñu tuddee nga xam ne xam-xam rek la nag ak day sant ci dégg-dégg mu amuy imaam suñu imam boobu nga xam ni xaal laaw xaal rasulaay rek la xam day sant ci dëgg-dëgg alaaji Pape Lo ñett ji daal faaw mu fàttaliku leen ci le trois boobu nga xam ni day sant ci dëgg-dëgg mooy tàkkusaani Seydina Muhammad ñu ni kon nag ñim ko pare ne mooy ànday ah sant ci dëgg-dëgg Cheikh Tidiane Guèye taalibi Cheikh mag ba ak kan Babacar Thiam mi nga xam day sant ci dëgg-dëgg euh, mooy taalibi Sëñ Baye si Mansour ak kan di Asiyaaw ak kan di Aliou Oustaz ak kan day sant ci dëgg-dëgg ñu ni euh, Daouda Thiam directeur Agri Sen ak kan day saan ci dëgg-dëgg ñun docteur Pa Ibrahima Guèye pharmacien mag boobu ca Ndakaaru ak kan ah ñu ki nga xam ne day saan ci dëgg-dëgg mooy Alpha Syll nag ah di attaché de cabinet di di ministre de l'élevage ak kan day saan ci dëgg-dëgg le grand responsable Bara Sall ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg ñu ne Mor Ndao Guèye a di adjoint au préfet nag ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg le grand journaliste mag ba muy kan Massamba Thiam journaliste mag boobu nga xam ni ndeysaan ci dëgg-dëgg yàllaa ko séddee DRTS ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg Mor Mbathio Ndiaye daw na sa faak Mor dikk <laughs> Mor Mbathio bés boobu yàlla lañ ko duppee de ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg nga xam ne mooy Ablaye Marne a di chef de bureau bu Eaux et ak kan day sant dëgg-dëgg nga xam ne mooy docteur ah ki nga xam ne mooy docteur Abdou Say Ndiaye nag ah moom it nekk ci daara ñu tuddee ko bés boobu ak kan day sant dëgg-dëgg ñun suñu jàmbaar d'islam bi mën do dëkkul jigéen la ñu ràññeeku muy kan di soxna Amine Bousso ñu naan ko Émilie kooku nag koo tudd sa xel dem dinañ nag ci Sidi am si da baax <laughs> kooku nag mooy borom këram Sidi Ahmed si mooy borom këram moom soxna Amit si moom ñu di békk bés bu ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg naa ni mooy Adja Jiram Bengen responsable politique départemental bu URD ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg mooy Ajaratu Adama Guèye ah kooku nag buñ ko duddee xel lépp day dem ci Aliou Macky Ndam waaye nag xel lépp day dem nag ndeysaan ci dëgg-dëgg ci nga xam ne mooy conseillère du premier dame de Aliou Ndiaye di Ajaratu Guèye Wilane ak kan ndeysaan ci dëgg di professeur ca sagata ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg ñun aji faama jaw madame Samb ah ndeysaan kooku nag mooy soxna sa baax moom tamit ci ci marraine yi la bokk ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg euh, soxna na ñam njaay nag kooku nag di responsable nekk ci Moussa Sidé war Moussa Sidat eh, eh réew moom xam-xam ak kan ndeysaan ci dëgg ñu ni baasin jugu commerçante mag boobu ak kan ndeysaan ci dëgg-dëgg ñu ni ndey jooju njaay kooku nag di grand responsable Pastef nag ak kan day ci dëgg-dëgg ñu ni daayira bu mag boobu muy daayira ñan muy daayira alaaji Birane Diop bu melax day ci dëgg-dëgg ñi nag ñooy pare yi ñu war caa sargal nag major Cissé nga xam lu nekk def na ko ci réew mi la sécurité avant tout waaye nag ci jom ci xam-xam ci fulla ci ngor gis gor na na nangoo liggéey lool ñu ne mu dégg commandant ba dégg fi ma joor ah fii ci bi daara jolof na kon bu retraité gàddu goppam dugg ci tool ah mi ngi won a yoon ah le major Cissé bés boobu ci lañ lay sargal ak kan lay sant dégg dë dëgg muy borom xam-xam bu tey ba ka yàlla mooy monsieur Diouf jullit ñi kooka nag day sant ci socialiste rek lay ci social rek lay dox muy kan di Alaaji Omar Ndiaye ñu naan ko a Alaaji As ah moom it ñu war koo sargal ci bés boobu ndax ku ku xam Omar nga xam ko ci diine

Euh, ñen ñoo koy sanaawu rasul euh, kan mooy conférencier ba ah ñu ni ci ndigal si daa mel nag ah kooku nag mooy Serigne Ousmane Sy Tivaouane kon mbokk yi bés baa ngoog le 3 la yemoo samedi ci weeru décembre 2020